والروض عين دبل ليلتين فهناك تقلب جنة لخو شيخنا تيجاني الشريف لا سراري خزيتي صدمة تدعى بحو متها من درداس خو قصة مفردة يا كاملة الأنوار والأسرار خزيتي صدمة فإذا أتي تبدو رحازرهم أخي خيالي تسعدا شيخنا فادخل أخي يا مسلما متأتبا نلت الفداء يا كاملا أنوار والأسرار خذ لخي يا مفرد العلم العليق جل قدرك في الندى يا كاملا أنوار ولا صغار وسيدي موتى خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا شكي جان يا مفرد العلم العلي قد جل قدرك في الندى قوت القلوب بالعاشقين حياة أرباب الهدى زلي يدان خلي يدان yi xusi li ya daan xusi li ya daan maam loxo baa ngi nii maam xalifa jàlle noo xusi li ya daan maam loxo baa ngi nii maam xalifa loxo yi xusi li ya daan xusi li ya daan maam loxo baa ngi nii maam xalifa jàlle noo xusi li ya daan te jóg leen màggal Cheikh na Tidiane Chérif Serigne baa ngi ñëw dox baa ngi nii maam Mbay góor gi jëm jaa ngi nii xol baa ngi nee loxo baa ngi nii maam am ya daan maam loxo baa ngi برقي لولاك الله أكو في النجاة لحسن عبدك في العدا قسلي يدان قسلي يدان مملك بانجني مام خليفة شيخنا أنت الملا ذو المأمن المقصود تحوي سوددا قسلي يدان usali doy maam lëkko baa ngi nii maam xalif góor gi nil tal mata li ba kullaha la man yaroo xu aw ixtadaan usali adaan usali adaan am la ko baa ngi nii maam xalif شيخنا قد نلتها بعناية من جدك سامي الجدار silli yadaan maam lëq baa ngi nii maam xalifa gër gi wala kat ata mutatafilun lexmaaka ma ma watarin bada xusali yadaan xusali eh, maam lëq baa ngi nii maam xalifa شيخ فلكم أتاك ويقتضي وقضيت ما مطلبه لدى خزلي يدا مملك بانجني سمالك سمالك درجي لملا وآن تلديك بحر الجود ذا لن ينفدا أصلي يدان أصلي يدان مملك بانيني مام خليفة جل شيخ أنت المعل لا عنده في ميسر العاشين دار jëmm ju tedd ji Cheikh Ahmed mi alxaaji Umar jàll imam ratib bu euh, Ndar mooy woy juróom di kilifa ci diine gi ak ci tariqa Cheikh Ahmed moom nag fa lillahi alhamdu li alxaaji Medoune Thiam di wax rek gàcce doomu soxna dalu ko gàcce doomu soxna mooy lan mooy ñu laaj la masala tontu waaye muy boroom xam-xam doon bàyyam ci xam-xam ndekete daal nitu yàlla buy dem aljanna lenn dong lay yóbbuwaale muy lan muy texe gi waaye xam-xam bi barke bi ñaan gu nangu ga daraja bi yépp da ko fi bàyyi am ñu ko doon muy doomam ju tedd ji mu nekk koo xamante ni ku yàlla cëral la ci wàllu luxa di boroom xam-xam di conférencier ñuy ñaan yàlla liggéey bii nga sumb yàlla ci yàlla def barke allahumma salli ala muhammad wa sallam wasalaatu wasalaamu ala mawlaana rasulillah bi aalihi wa ashaabihi wa radiya allahu an saaxibi almawaahib alilaahiya walfuyudaati alrabbaaniya والخيرات الدنيوية والأخروية مبعث ظفرنا في هذه وفي تلك شيخنا أبا العباس أحمد التيشان فهذا الذي نحن بصدد التوفر على نبش أهم الملامح الجوهرية الخلالية الشمائلية شيم فيه منذ ميعة صباه maxaayilul muslixil mujaddid فتحققت ذلك حز ما تلت بين يدي المنصحة التجانية فمقاها حق مقيته مالا ذلكم بحر هو نجل عثمان مفخرة الأمة التجانية وأخص بالذكر سيدنا الحاج مالك رضي الله عنه الذي سيظل اسمه يرتج على جنبات العالم الإنساني برمته ويرد على مسامعنا ويجلجل في تجاعيد سحايانا المخية فترات زمنية مديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لإقامة قائمة هذه المهمة الملقى على عاتقه تسلح بالحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهي التي تشد بيد المرء ويجعلها aw tajcalu tilkum alxikma lilmari yadacu alumuura xaysu taliiq falxikma tasbu lishayin waaxid macrifati alfikra allati tasuusu alkull fi kulli makaan wa fi hillatihi dacawiyati tiwaawaniya waajaha sayiduna alxaaji malik unaasan jubiluu ala alfaxfaxati waltaajruf waltabajuxi walsalaf id kaanuu xumaata alunuuf ubaata aldayl wa kaanuu yamlikuuna ناصية نقية وذمام القول إذ كانوا أرباب الفساحة والبيان وفرسان البلاغة فتوصل سيدنا الحاج مالك بحنكته المعهودة إلى رياضتهم وتذليل جانبهم حتى رضخوا واستقادوا له فأضحوا بمثابة الجمل الأنف حيث قيد إنقاذ والمعدة المالكية تتمثل هذه في العقل ويقول سقراط في هذا الصدد إذا لم يكن عقل الرجل في أغلب الأشياء عليه كان هلاكه في أغلب الأشياء عليه وسيدنا الحجمي عالج رجلا كان يشكو من رعونة إكلية دون من نفس ببنت الشفه تأنيبا أو توبيخا ثم انتقل إلى العلم هنا لقد بلغ سيدنا الحاج مالك من العلم أطورين وفاق لذاته ومعاصريه ونظرائه وحتى الذين أتوا من بعده من خلال خلاسه العقياني الذهبي هو الوحيد على وجه معمورة تناول المصطفى صلى الله عليه وسلم من سداه إلى لحمته حتى بإمكانك وبأيسر جهد وأزهده أن تستخفه عند ظعنك وعند إقامتك عند حلك وعند ترحالك بل عند كل شبر من حياتك فسيدنا الحاج مالك عندما انبرى لخلاسه الذهبي استأنف بالمرحلة السردية للوقائع والأحداث التاريخية ثم انتقل إلى المرحلة المسمى بالفلسفة التاريخية التعطيلية ثم تحول في المرحلة الثالثة إلى محام ليغشانا بالحجج والبراهين الدامغة الساطعة والحجج الماتعة القريعة فهذا إخوتنا الأفاضل عرض فذلكي عن سيدنا الحاج مالك كل منا يعلم أنه من المتعذر بمكان استيعابه على كافة علاته fa sayyiduna alxaaji Malik bi mathabati xidamin axlaaqiyin ilmiyin maarifiyin sulukiyin amaliyin wa taamuliyin kullama xudutahu kullama alfayta nafsak inda shartihi ثم نأتي إلى عزيزنا الأمين هذا الملم هذا المعم طلاع الثنايا شراب بأنقع هذا لم ما تشتت ورم ما تفسخ ورتق ما فتق وفتق ما رتق إنه بحق الملم والمعن وهذا كانت تحت كنف والده شيخ الخليفه فرضع رضع منه لبان الأخلاقيات السامية وتلكم الخلال التي تناهت إليه ألم تكونوا على بينة أن ثمة حديثا ينسحب وينطبق مع شيخ الخليفة ألم يقل صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه fa maa alayhi ma fatat xifdu amaana xiffatun fi tu'ma sidqu xadiis wa xusnu xaliqa kullu haadihi alxilaal qad tanaahat ila alaarifi billah cheikh alxalifa alladi qalla ma yu'taru ala mithlihi wa qalla ma yuxdaa bidariibihi wala ansa bilmunaasaba شيخ التجاني الخليفة العام سميه الطائفة التجانية الذي نود له آمادا طويلة وبعيدة حتى نستفيد من منهل أخلاقياته وعوائده المعرفية فترات زمنية مديدة ولأثريائنا الظراف الذين وفدونا من كل حدب وثوب وخاصة هؤلاء الذين غشونا من المغرب الشقيق قبل أن تنفض عقد قلادة الجماعة وتنفرط سلسلتها نتمنى لكم مكثا تظاهريا دينيا تجانيا رغيدا هنيئا مطمئنا ووسطا وفي غمرة حبور وفرحة ومسرة متمنين لكم أن تؤوبوا إلى عقر داركم بسلام وأن تدعونا بسلام لنلتقي إلى ما شاء الله بسلام وكلنا نتمتع بكافة قدراتنا العقلية والجسدية والله الموفق والمستعان وهو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم balaga allahu bika akla al umri ya abdal aziz wa jacalaka fi siyaaji kilaatihi wa cinaayatihi wa riayatihi xatta takuuna libraasan waddaan waraaka nastadi للأمة التيجانية التواوينية بشكل خاص والأمة التيجانية بشكل عام والأمة الإسلامية المحمدية المصطفوية بشكل أعم وكل عام وأنتم بألف خير والله الموفق والمستعان وهو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم والسلام عليكم mbokku jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu xaq te di leen bal xaq kàddu yi may yëkkati jëmm ju tedd ji moo ko war ku lekk alam war nga kaa gërëme ci yenn yàlla guddal fanam kon ci kàddoom lay waxe Seydil Xaaji Malik géej la goo xam ni ku ci suuf ku ko xuus defe ni àgg nga yaa nga ca tefes bi ndax la waaj a waxoon muxiitum bila shaati wa shaatium bila muxiit Alaaji Malik boo duggee tefes bala nga kaa jot boo duggee géej bala ngaa jot tefes Alaaji Malik nga ko dañu wax ni Alaaji Maalik mën na jàng ñu ni waaw mu ni moo jàngal ñi fi raw ñu ni waaw ñu ni konkat Alaaji Maalik ga raw ki fi raw c'est une logique Alaaji Maalik fab yonent bi min sudaahu ila luhmati jàpp yonent bi ci kaw boppam ba ci suuf dara manqué mu bind ko ci téere bu ndaw nga mën ko def ci sa poos dem ak moom te doo diis xilaatu zahab bii nag ndegam Malik bala mu daan jàng xadiisu yonent bi day sangu ba set jàpp ba tooy soccu solu bu baax xeeñu julli ñaari rakka dog ko dëgmal te muy waxu yonent bi rek waaye jëmm yonent bi bi fi alaaji Malik indi nag ndax dellu balaa ñu koy dëgmal ñu sangu ba set jàpp ba tooy xeeñu bu baax soccu julli ñaari rakka dog sukkaa dëgmal xeeb na ñoo ngi xeeb lu ñuy lakk benn la ci àddina dootul amati moo tax huwal xilaasu dahabi bal huwal xilaasu aqyaani nit nag bu la rawee boo ko rombatee sañ nga simmi say dàll rëppatal say oom simmi sa mbaxana jox ko ñaari loxo ni ko njool mi boo ko nee ngàttan bi yaa boo ko nee tungu ne masaaya yaa ko boo ko nee ndamal màcc yaa ko la jekk ca moom te yell ca moom njool mi Alaaji maa ji am kersa ak wàcce boppam moo tax la nekk ca biiram di ay jegle ki dayoo ki taxawaay mu nëbb ko la ngeen gis lenn la loo xam ne la ca biir a ëpp mu denc ko bàyyi langam ak la mu nekkal dem ca langu cheikh kon cheikh lëf la déggu wax ji de Alaaji Malik ak ni mu dayee ak dayoom ak ay jagleem mënoon demal boppam amoon wilaayaam ak yéppam mu bàyyi ka ca làngam dem wuti làngu cheikh cheikh lëf la wax ni alxikma bi mu ñëwee fii hillatihi daawiyati tiwaawaniya Alaaji Malik jëkkee ñëw tiwaawan boo amulee sages doo dem wa man yuutal xikma yàlla waxul xam-xam nit mën na am xam-xam sa jabar jabaram la jël ka ba du nekk kër ga doomam jaaxal ka ba du mën nekk kër ga waaye boo amee xikma dara du la jaaxal moo tax waaj wax ni la sagesse consiste en une seule chose la connaissance de la pensée qui gouverne tout et partout tàccu leen Alaaji Malik ku koy wutal fii moroom gis doo ko fi gis da nga daan ma danga nga daan génn wàll yan ca biti seeti ca naar yi waaja dafa ni ma monsieur Diallo avez-vous des célébrités religieuses ma ne ko à n'en plus finir mu ni ma kan man ko am na El Hadj Malick mun ma explique toi man ka kan ci yéen gis naa seen bibliothèque yi kan ci yéen moo jàpp yonent bi ci kaw ba ci suuf te nga mën ka def ci sa poos dama moom te doo diis loo wax am nga loo bàyyi foo dugg am nga foo bàyyi alaji mali rek Amen. àddina wërngal képp dañu waxoon ni l'histoire n'est pas une science ñëpp a waxoon ni histoire du science lam yaud al taarix min al ulum al lu tax ñu ni ndax kiy bind taarix bakkanam daf caa nekk c'est à titre subjectif bakkanam rek am nañu ko gëm am nañu ko gëmul El Hadj Malick simmeeku ni déedéet taarix science la indi ñetti étape ci xilaasu zahab bi bu njëkk bi yasrudu al ahdath wal waqa'i ala illatiha summa al marhala al thaniya summa al marhala al thaniya hiya al marhala al ta'qibiyya wa hiya tusamma bil fiqh al tarikhi summa al marhala al thalitha ويتحول سيدنا الحاج مالك إلى محام ليغشانا بالأدلة الملموسة القريعة الماتعة bu njëkk bi ñu ne Cheikh Seydi Hadj Malick daf lay wax nu nee nañu de yenent bi génn na àdduna de am nañu ko gëm am nañu ko gëm mu ni am nañu wax ni bis sàngam lañ ko suul am nañu wax ni beneen bis lañ ko suul man alaaji Malick maa sol sama robu avocat ni àllarba ci guddi la ñu sul yonent kon nag alaaji Malick lii la jàppee xilaatu bi c'est lui qui de la une science ñu ñëw ci sama waaj Aboubacar Sy radiyallahu anhu bi dafa wax wax joo xam ni moo ko moom nee na ñeenti jikko ngi ku mu nekk ci yow sa àdduna dana jag sa àllaaxira waxi noppi leneen loo fi ñàkkati amul njëriñ ñu ni lan xifdu amaana sàmm kollëre bay donde daana wax ni wala ana sama waa ji daan na wax ni kollëre ci mbay la yam xifdu amaana benn ñaareel ba sidqu xadiis bu la nee insha allahu bu subaa rek mu sotti sëñ Abu Bakar amoon na iffatun fii tuuma lépp lu mu dugal ci biiram bi dafa lew waaye kilifa ga ñëw na wax ak moom ñaan ko ni kan bu yowmal qiyaamatee bu ma fàttee mu ni ko waaw mu làmba ca jibaam joxe mu fab enveloppe ba dugal ci suufu der ba ni xale yi gunge leen ñu gunge ko ba ñëw mu fab woo xale yi jox leen enveloppe xale yi seet ka gis mu diis lool ñu ni ko maam kii ñu ni waaw attaay leen rek ndax xam fa xaalis ba jóge moo tax iffatun fii toxba lu mu lekk dafa lew ma lu mu lekk dafa lew ñeenteel ba mooy xusnu xaliqa jikko ju rafet mooy lan isticwaamu ma minhu ilayk wa istisgaaru ma minka ilayk jikkoo ngoog lii bàyyi ko ci yow jëm ci seen nawle nga koy jox tuuti tuutil ko lool bu ko naw lii jóge ci sa mbokk mu tuuti loolu rëyal ka bu ko xeeb sëñ Babacar a kenn fi taxawoon wax benn wax ba tey kenn waxaatu ko man de Babacar mosuma mooy yàlla kenn waxaatu ko de ma ne kenn waxaatu ko wala boo kenn déggatu ko wala ci biir néegi nan man mosuma mooy yàlla waaye àddina wërngal képp ñëpp taxaw nga wax benn baat ba àddina sosoo ba léegi moom rek la moo tax bu nee arif billaahi la wax na dëkk defe naa ni waxoon na ni walam akun walaw lam aud qistan wala qittan wala xaddan wala nasiban wala baxtan li malik lam ataadda ma ana aley bu ma nekkul woon cëru malik it nii rek laay mel xalifa cheikh xalifa malik mbokk am na wu mu leen bëgg fàttali nag sëñ bi waxoon na ko mooy zawaayaay yi Seydil Hadj Malick defaroon place la yoo xam ni kenn du ko tëj tey bu nu jullee rek tëj def ko na jàkka yi nan ko du ubbi saxaabata nahaar bëccëg bi yëpp fa la ñuy leerale mbir fa la ñu leerloo mbir fa la ñuy attee fa la ñuy tasbiixe fa la ñuy takbiire fa la ñuy tahliile fa la ñuy jànge fa la ñuy jànge alquran fa la ñuy gàggantee fa la ñuy yeesloo fa la ñuy joxe wér fa la ñuy dimbalee bu nu bàyyee loolu nag danga gis xale bu yow suba rek xol xaaf saalum ni gis bi gis na cheikh moo fi am ne bare na fi de ndar de am naa fa benn saafaandoo boo xam ne moom tam gis na cheikh <laughs> te fatiha bu baax sax mun loo ko jàng kon nag nañu delloo si waa zabaaya yii muy ubbi subaak ngoon lii rek mooy wax ci toog weer ba weer di daje bu yàggee fàtte day ñëw de lii ñu la defal nag suba su nekk boo jaaxlee suba su nekk bu sa di sa ngëm-ngëm bëggee rab zawiya ngi nii moom rek ko mën defal nañu dellu ci zawi zawiya yi jàngalaat xale yi ñu xam seen tariqa xam seen diine ndax kuy dox ñu ni kee nit la ku nite jullit la tijaan la fa bu ëllëgee bu ëllëgee ñun ñëpp xaynama namsul عند الحضرة الإلهية برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشيخنا التجاني وعمرنا الفوتي وسيدنا الحاج مالك والشيخ الخليفة وعبدنا العزيز والحبيب هذا ومحمدنا المنصور walmujabuuna bihim yuqaalu fi xaqihim ayuha tijaaniyuun haadihi abwaabu lfirdaws ala misraaciha maftuuxa wa gayru musada salaamun alaykum tibtum fadxuluha xaalidin haadihi carasaatu lfirdaws annaciimi almuqiim fatabawwa'uu fiiha xaysumaa tashaa'uun fa nicma ajru laalimiin wa kullu aamin wa antum bi alfi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullaah. كالفارس الذي لا يجارى ولا يبارى xad awkalahu ila ila xalifa Cheikh Ahmed Tijaani wa hadihi mubadara tayiba qaala Cheikh Ahmed Tijaani innahu yusamminu lakum hadihi almubadara wa huwa mumtannun lakum bi hadihi allafta alkarima wa madinun lakum bilshukri walirfan wa ma hiya bi awali barakatikum ya ala malik ma hiya bi awali barakatikum ma hiya bi awali مواقفكم التي تذكر لكم فتشكر والآن لا نطيل بالعربية فقد سمعنا منها ما يكفي الليلة المحاضر الأول أبدى ضلاعته في هذه اللغة لأن ما شنف به مسامعنا من عربية ناصعة نمت على أن زوايانا ما زالت بخير وإن رحل الأستاذ إبراهيم محمود جوب فكل شبابنا هم يقفون موقف أستاذ إبراهيم محمود جوب وإن كان أستاذ إبراهيم محمود جوب وحيد نسجه وفريد المنابر وكان لا يجارى ولا يبارى ولا أحد يقف ب jiwaarihi illaa wa asbaxa qazman wa dalika li tuuli baaxihi wa tafannunihi tamakku tamakkunihi min naasiyati hadihi luga wa ma mattaahu llahu bihi min albayaani walfasaxa rahimahu llah wa ardaahu wa ah, nasalu llah tabaraka wa taala an yataqabalahu fi lulama alaamilin innahu waliyu dalika walqadiru alayh sayid abdul bakduri abdulatif ismax li antaqil ila alluga almaxaliya li uarifa bixadratikum summa uxiilu almicrofone ilaykum insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu ñépp di ci jiital suñ kilifa gii di mawlaana cheikh abdul aziz baqiyat salaf saalih xam ne moo fi toogal mag ñi te toogaayam bu mag ñi delsi woon du ko defaraat Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu delsi woon du defaraat toogaayam maa ngi nuyu ñëpp dama ne Cheikh Ahmed Tijani ibnu Mawlana Cheikh l'Islam moo ñi yebal ngir ñu wuyu si woote bii nga xam ne ñun ak yéen a ko bokk muy bés bii nga xam ne bés suñu seriñ ñun ñëpp la Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu sëriñ bi def ci defin wu rafet yebal délégation bu mag suñ mbokk Aboubacar xalifa ah, Lomé ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñu ñëwoon ca Kaolack seet si sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ne ko sëriñ bi nee na lépp lu nekkoon ci loxo Oustaz Barham mu ngi ci sa loxo koo yeebal rek bu ñëwee mooy Oustaz Barham ca jotaay ba sëriñ bi yebal fi délégation bu mag. boo xam ne ñi koy ki ko jiite mooy rakkam Cheikh Mouhamadul Qarashi moo teewoon na fi démb jiite délégation bi fi teewoon démb ànd ak ay doomu doomi sëriñ bi Cheikh Babacar Niass Cheikh Tidiane Niass ak ñeneen ak ñeneen ci doomi muqaddam yi ak xalifa yi ca kër ga. tey tamit ñu ñëwaat ànd suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Arabi Niass ma nga ne toog ak doomam Cheikh Tidiane Niass ak suñu mbokk Ibrahim Oustaz Ibrahim bi tey ñu ñëw teew sëñ bi nee na cër bi. sëriñ sëriñ bi jox ko rëy na lool Cheikh Abdoul Aziz nee na cër joxe cër mënta paase lii nga def te nag dangay boroom cër moo tax nga mën a joxe cër innama yaarifu la li ahlihi dawul fadl dawu ku am cër rek moo mën a joxe cër nee na cër bi rëy na lool ci moom te du wax guleet nag ndax sa maam Sidil Hadj Malick ridwanullahi taala alayhi moo njëkk yëkkati cër bu mag jox ko suñu maam Mawlana Cheikh Al Hadj Abdallahi Niass al Kabir al Jëdd ba mu ñëwee Tiwaawan dafa simmeeku ci mbooleem fonction moom suñu maam Sidil Hadj Malick ne ko jey da da jumaa jaa ngi nii yaa koy jiite daara jaa ngi nii yaay jàngale masala yi yaa ciy tontu. ku fii laaj wirdo yaa ko koy jox ku yeeslu yaa koy yeesal nee nañ ci dundam ci lañ ko mus a gisee mu ci ay fonction am kon lii yàgg na sa baay yu baax yi fi jaar yépp feddali kóllëre googu tàmbalee ci sa baay suñu maam cheikh xalifa alhaaj babacar si radiallahu taala anhu di ko doxal ak suñu maam yu baax ya maam xalifa ñes ak bàyyi seydil arabi mii di seydi suñu maam alhaaj mouhamad zeynab jaar ci cheikh al xawmi sëñ haaj mansour ak suñ maam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ba yegsi ci Cheybatul Hamdi Mawlana Alxaaji Abdul Aziz Si ridwanullahi taala alayhi moom mu ñëw gën a dëgëral li fi mbaay baayam baayam yi doon def baayam doon def ak magam yu baax yi at yi li atam yi bëri bëri mu mag lool suñ nijaay nijaayee nekkoon ca Kawlax ndax moom digganteem ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñeenti at rek a ci dox ñeenti at rek la ko suñ maam magee kon ñi fi wuutu baay ay doomam lañ moo leen mag fuuf waaye danaan sol dàllam dugg otoom ñëw Kaolack di leen seet si loolu mbaax mënu ko weesu ak sàmm kóllëre yow nga ñëw tey mbir mi yegsi ci suñu nijaay Cheikh Ahmed Tidiane mu dénk la lépp te nga mate ko nga yëkkateeti cër boobu sa maam yi daan ñu jox yu baax yaak sa bàyyi joxeetikuñu ko sëñ bi nee na loolu amut fayam mu ngi lay bàyyi ak yàlla yàlla fay la may xamal na nag may xam la ne Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñëwuñ fi ngir wuutu ko mënuñ ko kooku kenn mënu koo wuutu xanaa dafa tolloo rek ndigali kilifa moom la kenn mënut lu may topp ko suñu sëriñ sëriñ bi moo ñu fi yebal ñu ne woon nañ ñëw jéem dele xam nañ ne place bi feesuñu ko ñuy fàttali ne bés bi sëriñ bi ni nga ko tuddee tey sa baay suñu maam Habib njëkk nga koo tuddee sa baay moo Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim nes loolu tamit fàttewuñu ko kon ci gàttal lool ndax buñ toppee loolu dinañ guddal jotaay bi dañuy ñëw ci présentation bi suñu conférencier bi tey mooy Cheikh Abdou Latif Bagdouri mii ngeen gis mu toog ci suñu wet di raisu diwaan bu Sa Majesté Mohammed Sadis nasarawullah ca Maroc di membre euh, congrès wala comité scientifique bi nga xam ne ñooy liggéey ci wetu buur bi Seydi Mouhamadine Sadis di conférencier bu mag di wootekat bu mag ci yoonu yàlla ak ci tariqa sidna cheikh radiallahu taala anhu di borom xam-xam di bindkat di gëstukat di imam bu mag ca Maroc di ku nag yàlla boole ak sëriñ bi Cheikh El Hadj yàlla boole na kook ñu baax ñëpp boole kook kilifa réew mi yëpp ak xulafaaw tariqa bi waaye rawatina Cheikh El Hadj yàlla boole na leen lool te li leen boole ñëpp xam nañ ko mooy Cheikh El Hadj ñun liñ koy jëwee maak sama nijaay ji démb ba tey mooy dañoo wax ne gisuñ kenn ku gën a yeey tey ci mbubbam nekk avocat wu tariqa bi ci moom. dafay avocat wu na ma Ahmad Tidiane tariqa bi da koo ñor lool mu koy défendre waxtu bu nekk loolu wuuti na ci mag magam rakkam yi ak magam yi raw magam yépp ñuy ñaan yàlla cheikh na ci barke Sidna Cheikh radiyallahu anhu yàlla dëgëral ko ndax bu dëgëree tarixa bi dëgër diina ji dëgër te yooyu buñ dëgëree lépp baax yal na yàlla def loolu cheikh Bagdouri di koo xam ne moom ku tariqa bi ñor la ku nekk ni tariqa bi ci suñu réew yi di Afrique yitteel suñu zawaayaa yi itteel ko muy kont muy bàyyi xel toujours li xew fii ci ñun ak ci région bi waxtu wu ma dajee ak moom daje woon nañ ca colloque ba journée culturelle bi nga xam ne moom la euh, association Assane 2 doon amal ca Tiwaawan sëriñ bi yebaloon fa yitteem yëpp mooy Nigéria yëngu-yëngu ya fa nekk nu ñuy def ba mu dal mu ne ma maa ngi ciy waxtaan waxtu bu nekk ak Cheikh El Hadj Abdoul moom it mu ci waxtaan ak ma rakkam ju baax mbokkam ma Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass ngir ñu mën a indi solution ci loolu loolu yëpp nag balaa mën a am li sëriñ bi wax démb muy Cheikh El Hadj Abdoul dafa am mooy ñu gëm ne ñun waa kër Sidna Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu benn famille lañ. ñoo bokk kër kër gi kër Cheikh Ahmed Tidiane la kilifa gi kenn la mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane mi waxoon ne man yaarifuni yaarifuni wahdi loolu buñ ko xamee doxal ko rek ommatu ci gannaaw suñ kilifa yi nekk ñun ñëpp benn di yëkkateendoo ko tëralandoo bu soobee yàlla dinañ mën a eggale liggéey bi fi nga xam ne fa la suñ naa cheikh bëggoon mu yegg fa yonentu maamam bëggoon mu yegg fa suñ mag ñu baax ñu ko doon bëggoon mu yegg fa kon Abdoulatif Bagdouri du bi ci thème boo xam ne mooy euh, la pacte morale et sociale de la Tijaniya à l'image de Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu loolu mooy lan rôle ah loolu mooy defe naa thème centrale bi li ma Cheikh Abdou Latif wax ah, waa ñu ne loolu Cheikh Ahmed Tidiane yi moo koy def ah moom ñu ne dañ koo boyal pour mu wax rek ci li nga lépp lu ko soob lu aju ci wàllu tariqa bi ak nekk ni ñooñ tariqa bi kon thème bu njëkk boobu muy rôle bii nga xam ne tariqa bi am na ko ci wàllu social Cheikh Ahmed Tidiane yi mi ñu doon déglu sànq moo ko war a def kon Seydi Abdou Latif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 Alhaj Ahmed Tijanissi. سيد الأستاذ المحاضر المحترم الذي أتحفنا بقول وعلم سيدنا الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم يس ممثلا في ولده والولد الكبير الذي جاء معه ساداتنا ذرية مولانا الحاج عمر السي ممثلين في أخي الحاج مكي طل ممثلا لأخيه أخينا وصديقنا السيد مدني طل وسبى ممثلي خلفاء ومقدمي مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه السيد الحاج ملك فضل رئيس تنسيق الدوائر التجارية بدكار والجميع المسؤولين والمشرفين عن هذه التنسيقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يصعب على الإنسان أن يتكلم بين فصيحين وأن يخطب بين خطيبين وأن يبث معرفة بين عالمين لكن قضى الله تعالى أن أكون اليوم بين أن أكون متطفلا بين رجلين كبيرين مفوهين عالمين جليلين موجهين مرشدين فنسأل الله تعالى أن يمنحنا من نفحات علمهم ومعرفتهم وكما جرت العادة في خطابي لكم في مثل هذه المناسبة أنا أثير معكم بعض الأفكار التي نرجو الله تعالى أن يجعلها سببا للتلقي والترقي وسوف أطلب من أخي القائم على ترجمة ما أقول من كلمات أن يكون دقيقا فيها لأن فيها أفكارا محددة نرجو الله أن تصل ولا يمكن أن أبدأ الكلام دون أن أذكر صديقنا العزيز وأخانا الفقيد الأستاذ إبراهيم محمود جوك الذي كان دائما إلى جانبنا في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات جدد الله عليه الرحمات الموضوع الذي سمعناه قبل قليل موضوع عظيم جليل أو حالي بكثير من التوقفات والملاحظات أريد أن أتذاكر فيها معكم ومن جملة ما أوحاه أن هذه المدرسة التيجانية المحمدية لها خصوصيات ومميزات ولها أبعاد لأن مولانا الشيخ التيجاني رضي الله عنه كان محمدي الحقيقة والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله تعالى فيه من الخصال ما تفرق في الأنبياء والرسل ومولانا الشيخ رضي الله عنه جعل مع الله تعالى فيه من الخصال ما تفرق في الأولياء والعارفين وهو رضي الله عنه مد أصحابه من هذه الخصال والمعارف أخلاق والشيم والشمائل وغير ذلك بحسب ما أمر الله ورسوله وبحسب ما سبق في الأزل على وفق العناية والمشيئة من حق كل أحد من هذه الأمور فتفرق رضي الله تعالى عنه في أصحابه ما جمعه الله فيه وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يظهر له خلفاء يتميزون في حقب متفاوتة من الزمان كل خليفة يظهر الله فيه أشياء يجلي بها ويتجلى بها على الناس تظهر لهم حقيقة هذا الشيخ الكبير رضي الله عنه ومن هؤلاء الخلفاء الشيخ الحاج مالك الذي أنشأ مدرسة تجانية حقيقية تميزت بأمور كما تميزت مدارس أخرى بأمور ومدرسته في نظري واعتقادي وتحليلي ارتكزت على أمور أربعة مهمة جدا وهي العلم والعمل والأخلاق ثم الحضارة فتجده أسس كل توجيهه وتوجهه على العلم وأنتم تعرفون أنه جاهد وقاوم وحارب وصد بعد أن كان من قدر الله أن انكسرت شوكة الجهاد الحربي بالسلاح فتصدى هو لنوع آخر من الجهاد والمقاومة وإثبات الذات والاستمساك بالله ورسوله وبدين الإسلام عن طريق التعليم والتربية وتحفيظ القرآن واللغة العربية والتوجيه مما سرى في كل المدارس المنتسبة إليه بعد ذلك ولا زال حاضرا إلى الآن ودليله أننا نرى في مدرسته هؤلاء الفحول الفطاحل من العلماء وال المفوهين والخطباء والبلغاء والشعراء مما يعكس حقيقة هذه المدرسة ويثبت نجاحها في هذا الأمر الأمر الثاني مسألة العمل بالعلم لأن العلم الخالي عن العمل به لا يفيد بل يضر بل يحاسب صاحبه عليه فتجد هذه المدرسة كانت منضبطة بما تعلمته من العلم ولذلك كان الاستمساك بأصول الأشياء واستمر هذا وبقي في كل التلامذة والأتباع والمحبين الأمر الثالث قضية الأخلاق والأخلاق هي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فتجد هذا المربي الكبير اقتبس من مشكاة مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه التي هي من مشكاة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانضباط الأخلاقي الذي سرى في أتباعه وتلامذته إلى الآن فنحن في مخالطتنا لكم وفي معاشرتنا وترددنا لا نرى إلا أناسا شيوخا وكهولا وشبابا رجالا ونساء متشبثين بمكارم الأخلاق في تواضع وعفة وسماحة وخلق ووجه طلق وغير ذلك المسألة الرابعة مسألة الحضارة هذه الأمور كلها جمعها الشيخ الخليفة الحاج مالك سي وأتباعه وتلامذته والمتشبثون بمنهجه وبلوروها في أسلوب متحضر فيه الجمال والحضارة سمة العصر والصوفي كما يقال ابن وقته فلا بد أن يكون مسايرا للعصر الذي يعيشه فإذا كانت السمة الطاغية على العصر هي الحضارة وجب أن يكون هذا الصوفي متحضر بل أكثر حضارة من الناس لأن الحضارة عنوان صفاء الباطن ونقاء الفكر فلذلك تجد المنتسبين إلى هذه المدرسة أكثر جمالية وأناقة وتحضرا وانتظاما ونظاما وفي في الشكل والمضمون وطبعا هذه أشياء قد لا تبدو لكم ظاهرة لأنكم تعودتموها بالممارسة لكنها تثير انتباه الملاحظ ويتفطن لها الإنسان بمجرد مخالطة أهل هذه الدائرة المالكية والمحبين لها والحائمين حولها ولا شك أن الجمالية هي قيمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لها اعتبارا خاصا وكان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا وكان يتجمل للوفود والناس وكان يلبس أحسن ما يلبس وكان يقول عليه الصلاة والسلام واحد سأله رسول الله الرجل يحب أن يكون منظره حسنا وملبسه حسن أذلك من الكبر قال لا إن الله جميل يحب الجمال فهذه هذه مسألة نبوية نلمسها أيضا في هذه المدرسة طبعا هذا موجود في غيرها من المدارس التجانية لأن الأصل واحد لكن في مدرسة الحاج مالك سي تجد هذا متطورا متميزا ملفتا للنظر ونحن نراه في هذا الجمع المبارك الميمون في هيئة الجلوس وفي اللباس وفي النظام وفي الكلام وفي غير ذلك من الأمور التي تبلغه وطبعا مولانا شيخ تيجاني رضي الله عنه كان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كما على كان على قدمه في غيرها من المسائل ومولانا الشيخ كان جميلا متجملا يحب الجمال يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن ما يؤكل لكن لا يتخذ من متاع الدنيا إلا أبسط الأشياء لأن هذه القضية قضية الأكل وقضية اللباس هذه قضية تعبدية ولذلك قال مرة واحد كان عنده مكلفا بالمؤونة يشتري ما يلزم الدار فجاءه مرة بلحم هزيل رديء فعاتبه في ذلك وقال له الهزيل لا يعجبنا ولا يليق بنا هذه من من الهمة العالية وكان رضي الله عنه يلبس أحسن ما ما يلبس في الهيئة والمظهر ويتجمل للناس صورة مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه طبعا هي لا علاقة لها بهذه الصورة التي ينشرها الناس هذا شيء من مخيلة بعض الناس وضعوه ونشروه لا علاقة له بالواقع على كل فإذا هذه الأمور الأربعة المميزة لهذه المدرسة المالكية التجانية هي من أسس الأشياء التي تنبني عليها التربية لأن التربية إذا خلت من العلم والعمل والأخلاق والتحضر الجمالي فلا قيمة لها ولا تثمر شيئا ولا تفيد شيئا ولا يتخرج منها أفراد الرجال لكن إذا اجتمعت هذه الأمور خرجت وعلى كل حال هذه مسائل أن لا أعلمها لكم ولكن أذكرها لتكون عندنا في الاعتبار ولننتبه إلى أنها أمور تنتج عنها مسائل عظيمة جداً لأن الشخص الذي جمع بين هذه الأركان الأربعة يكون إنسانا مفيدا صالحا مصلحا أينما تحرك أو تكلم أو عمل ينتج عنه الصلاح والإصلاح والخير العميم في أي موقع كان كان عالما أو متعلما أو سياسيا أو اقتصاديا أو غير أو فلاحا أو عاملا في أي موقع كان إذا كان يتميز بهذه الخصال ينتج عنه الخير ويسري منه الخير إلى غيره من الناس هذه قضية مهمة جدا لأنها تعكس حقيقة دين الإسلام فإذا لابد أن نتفطن لهذه الأمور ثم هذه المدرسة أنسجت لنا رجالا عرفنا منهم وخالطنا مخالطات مستمرة عن قرب السيد الشيخ عبد العزيز سي الذي هو بجانبي نعتز به دائما ونفتخر الذي بدأ يظهر لي في ساحة العمل التجاري التربوي التوجيهي من مما أمده الله تعالى به وأجره على يده من بوادر الخير للطريقة التجانية ما يذكر ويشكر ونحن ننتظر من أهل هذه الطريقة أن يقع فيهم بهمة مولانا الشيخ رضي الله عنه تجديد وإصلاح وتنظيم لأعمال جليلة جادة تحمي الإسلام والمسلمين في كثير من الربوع التي انتشرت فيها الطريقة نحن في حاجة إلى هذا وهذا لا يستقيم إلا بعمل رجال مخلصين عقلاء أتقياء حكماء وهم متوفرون هنا في السنغال الذي هو بؤرة مهمة جدا بل رئيسية مركزية من بؤر وجود الطريقة التجارية ذكرت لنا وذكرت به لا أعلناكم ولا أعلنا أمثالكم الله تبارك وتعالى يبتلكم ذخرا لهذا الدين والطريق هذه الطريقة إنه ولي ذلك والقادر عليه mbokk yi dellusi waat rek ci lu gaaw jéem a tënk li nga xam ne moom la fi suñu conférence yi mu mag bi sotti conférence bi conférence bu fekkee njëriñ la mu ngi ko tàmbalee ci nuyu sëriñ bi Mawlana Cheikh Abdoul Aziz di ko di teg nuyoo bi mu yóbbante sëriñ bi xalifa bu tedd bi Mawlana Cheikh Ahmed Tijani si ci loxo sëriñ bi ngir mu jotol ko ko nee na gannaaw loolu mu ngi nuyu mbooleem njiiti délégation yi fi teew di nuyu Euh, alxaaj Malick Fall mi nga xam ne mooy président wu daayira yi yëpp coordination bi yëpp mu koy coordonné nekk ci bopp ba nee na mu ngi koy nuyu bu ko nuyoo nag nuyu na mbooleem ñiy liggéey ak moom ci loolu képp ku koy taxawu rek nuyu na la nee na nag mu tàmbalee waa conférence bi ci ne wax ci diggante ay boroom xam-xam moo gën a jafe ci wax yi xam naa ci dara man mi tey ndax foofu laa toll mu ne bu waxtu wu la ñaari boroom xam-xam yu la gën a éloquent séqee rek njëkk laa wax dafay mel ni dañ laa bàyyi gémmiñu neen nee na situation bu jafe la ci moom waaye ci man mii la loolu di gën a dëggu mu ne nag dafa bëgg man mi nga xam ne maa xala maanaa yoo ñëw traduire conférence bi ma jéem a bàyyi xel bu baax li muy wax ngir nga ma xam ne dinaa ko ma mën koo déglu attentivement ngir mën koo tënk tënk bu leer parce que yi muy wax daf ko itteel te dafa nekk ay point yoo xam ne point yu am solo la yu jara leeral la mu ne euh, balaa dugg ci point yooyu fokk mu taxaw tuuti fàttaliku suñ mbokk kilifa gu baax ga cheikh oustaz ibrahima mahmoud Diop rahmatullahi alayhi ndax nee na kenn mënu koo fàtt ndax liggéey bii ñuy liggéey lislaam ak tariqa bi moom ak ñoom a ci àndoon ak sëriñ bi mu ciy liggéey liggéey bu rafet ba suñu borom xëy def li ko soob ci moom li ko sëriñ bi waxee léegi Cheikh Alhaji Hadj Abdoul moom it noonu la ubbee jotaay bi ne nañ ñaanal mbokkam ma Cheikh Oustaz Ibrahima ma ne ko fàtte woo ko de yow doo fàtte mbaax li sa bàyyi moo daanaa Cheikh lislaam waxoon ne al ihsaan la ujazihi bi nisyaan mu ne teraanga ak mbaax du ma ko fayee fàtte waaye yooyu tamit ku ànd ak yow na xelam dal te xam ne ànd naa koo xam ne du fàtte mukk lu baax du fàtte kenn ko ànd ak moom bu jiitoo yi mu ko des bi di ko ñaanal di ko tudd di ko waxtaanee loolu si dalal na xelu jaboot yi lool eh, ñu ngi la ci ñaanal yàlla yàlla fay la taxawaay boobu moom it loolu la wax ne nañ jàng fàtte a ñaanal oustaz ndax kenn mënu ko fàtte bi mu paree ci loolu mu ne dafa bëgg a wax ci tijaaniya comme école boo xam ne ci école yi tasawuf yi la bokk di école yi jàngale jikko ju rafet di yare ci diine yare bu rafet ba nit ñi mën a jikkowoo jikko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye nag muy joxe exemple ci école suñu maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick Sy diwaanullahi taala mu ne école yi mu ne tijaan cheikh na tijaaniya wala cheikh na tijaani radiallahu anhu dafa niroog maamam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam lool ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo yar comme ni mu ko waxee addabani rabbi fa ahsana bi sama borom moo ma yar defar ma defar sama jikko defar sama yar rafetal sama yar dëxëñaale ci moom mbooleem lu mbindéef fi soxla ci xam-xam ci jikko ju rafet ci mbaax nee na nag loolu yonent bi salaa a ëmboon ci jikko yu rafet ak mbaax ak luy leeral àddina di ko jagal lépp dafa tasaaroo ci mbokk yonentam yi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yi ñëw moom it donnu yar booba maamam donne ci jëlee ci boromam mi ko yar ba mat sëkk dara desut doonu xam-xam ba doonu lépp leer ga moom it tamit loola mu ëmboon tasaaroo ci mbokki wàllu yoom yi waaye nag nee na saxaabaan yépp doon nañ ba doyal waaye kenn rawu ci Seydi Hajji Maalik Si radiyallahu taala anhu nee na waaris xaqiiqi la li Cheikh na Tijaan radiyallahu anhu mu ne dafa doon si naa Cheikh bu mat sëkk bu wér kon doon na maamam fu doon na cheikh doon maamam ndax mooy maamam mu ne école di école boo xam ne école bu ñu mën a joxe exemple ci moom la te mu ne buy tënk école yi morasin Hadj Malick ci yan pilier la taxaw ak yan principe daf koy tënk ci ñeenti principe ñeenti point bi njëkk bi mooy xam-xam bi ci topp di jëfee xam-xam ak boole kook liggéey bi ci topp di jikko bi ci topp di civilisation mu ne yooyu mooy yi gën a am point yi nga xam ne moom la jukki ci biir point yu bëri yoo xam ne nii école yi Mawlana Seydi Hadji Malick Sy euh, daf ko daf cee taxaw pour waxtaanee ko tey mu ne moo tax sëñ Xaaj Malick de radiyallahu anhu dafa nekkoon ku jox solo xam-xam lool di dundam yépp tasaare xam-xam ci la ko jeexal ak jàngale ak former ay borom xam-xam mu fekk fi mag ñi ko jiitu ñu ci bëri aw yoonu jihaad di xare di tuur deret ngir lislaam xëy na ñoom seen époque moo ko laajoon ndax loolu yépp dafa bokk ci diine yoon wi ndax lislaam yi tamit nag duul ab yaafus boo xam ne ku ko pes rek mu yor lay la xam nga continuer pes waaye ku ko pes mu fay waaye moom bi ñëwee ba xam ne époque bi mu dajee laajut loolu mu def li ñuy wax jihaad pacifique te mooy jaar li mag ñi doon bay jéem a samp ci jihaad bi moom mu jéem koo samp jaare ko ci jàng ak oote ci yàlla ci xikma sagesse bu mat sëkk te du ci boole xuloo du ci boole violence nee na xikma boobu la ko yàlla joxoon mu liggéey ci liggéey bii nga xam ne nii tey moo jur tey lii ñu gis nekkin wu rafet bii bi ci topp mooy mu ne xam-xam li muy baax baax baax bari nañu ko jàngale waaye bañ koy jàngale boole ñu ko ak jikko boole ñu ko ak jëfee waaye Mawlana Seydi Hadji Malick li mu doon jàngale def caa jiitu ko jëfee ba nga xam ne ñi mu yar njëkk ñuy masala yi balaa ci daf lay ji daf koy nga gis d'abord ba nga xam ne bu ëllëgee yow mën a tàggoo mu ne loolu mooy école Mawlana Seydi Hadji jur na euh, jikko yu rafet yi tey ñu gis toppam mi di ko jikkoo ak képp kuy taalibeem ak képp ku jimoo ci école nee na dafa nekkoon ku jikko yu rafet itteem te buñ fàtte ne tasawuf mooy jikko ju rafet tasawufu ma huwa illa axlaaq man zaada alayka fi lxuluq faqad zaada alayka fi tasawuf ku la ëpp jikko ju rafet moo la gën a nekk ak suuf suuf yi mu ne loolu nag si xabaraasi xaaj Maalik loolu dafa bokkoon ci liggéeyam bi ci topp mooy mu ne mu nekkoon ku insaan mutaxaddir xaayit mutaxaddir dafa civilisé mu ne lool dégg civilisation islamique xam jamono ji mu muy jamono joo xam ne jamono civilisation la mu ñëw adapté wu ca lool duutoon sëriñu nal li moom waaye sëriñu taax la woon bu dégg jamono man damay wax toujours ne mooy intellectuel u sëriñ si maanaam moom euh, dafa civilisé euh, intellectuel la boo xam ne léppam ci xam-xam la ko teg ak civilisation loolu la suñu conférence bi mu nekk école boobu mu ne ci la moo ko yar boobu ak principe yooyu moo ko may mu génn école am génnee kàngam ak ponkal yi mu génne mu ne ñuy kàngam yoo xam ne kenn ku ci nekk rek mën naa wutu tariqa bi lim na nee na sori yi tudd mag ña euh, ñoom maanaam Cheikh El Hadj ak El Hadj Mansour mag ñi Seydi Hadj Malick Ndiaye ñëpp sëñ Aliou Gueye du lim ñooñu waaye nee dafa koy rek gàttal tem yem ci sëriñ bi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ne doy na exemple rek ne école boobu moo yar école boobu ci la génne mu école jikko mu ne ne buñ fàtte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq sama borom dafa maa yónni ngir ma mottali ji tedd ngaay jikko yi te dafa mel ni inna maa la jëfandikoo baatu xasko maanaam loolu bangu bangu kese kese kese mooy tax soo borom yoon ni loolu la ji loolu la ñuy ci xasko bi <coughs> mu ne tariqa Cheikh mooy école bi doon njàngale yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tijaani moo ko incarné moom it mu ñëw moom Seydina Cheikh jaar fa maamam jaaroon jaar Maam Hajji Maalik mi ngi doon wax ne civilisé la woon nee na mën ngaa wax ne mu ngi ko nampee ci sëriñam bu tedd bi Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ndax Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane daf doon koo xam ne dafa ànd ak jamono dëppoog jamono kenn gënu koo dëppoog jamono moom moo daan wax man yaarifu moo daan wax bi seyri zamanika sir mu ne nu sa jamono doxee rek doxee noona bul mu mukk bul ak sa jamono doxal dégg naa ci sëriñ bi Cheikh Mahamadou Aziz muy wax ne bàyyi daan naa wax ne Mawlana Abubakar Cheikh Mahamadou ko kon loolu moom la fàttali fàttali ne Cheikh Tidiane ku taar la woon ku la woon ku xay la woon nekkoon koo xam ne nii mu ne ñi ko wër ñëpp da nga gis loolu ci ñoom te ci Cheikh lañ royee ni nga xam ne ne maanaam El Hadj Sidi Hadj Malick toppam mi ñu ngi nii bonekaane yu rafet yi yi basin yu riche yi macha yi ñoo ngi niróo seen solin yi école la boo xam ne. lépp dafa tegu ci ordre ak organisation ak xayat civilisation ak dal ak tey nee na loolu njàngale Seydi Hadji Malick moo ko indi te bu fàtte ne lislaam taar ci la bokk rafet ci la bokk xëy ci la bokk ndax nee na loolu tubi bu rafetoon la sallallahu alayhi wa sallam daan toppatoo kawar daan toppatoo conaaya daan gëttu daan wax wax ju tey ju li nga xam ne nee na noonu la ñu si école Hadji Malick neexee wax yi ak leere ko leere ko yëpp dafa ñuy fàttali njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu tënkoon ko ci inna allaha jamilun yàlla ku taaru la ku bëgg ku taaru la euh, wax na mu bëri ci yooyu ba nettali ne Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu dafa am benn surgaam bu nekkoon ci këram daan ko duggale marché amal bés mu dem jëndal ko ndawal ko rafetul dara jënd fa la gën a ñaaw te lu gën marché wala jënd ko si naachère si naachère yëpp ko ne ko gannaaw si tey bu ma jëndalati euh, lu may dégg naa moom laa Cheikh Assane dem daan ko nekk nii alaamatu tariqa bi daan wax ne si naachère def na ko dee ma duggal fa ñuy duggalee buur yi dee ma duggal. fa buur yi dugg so euh, surgaay buur yi di duggee seen ndugg dee ma fa dugalee waaye bu ma dugalee tudd na ko fi pour junj seen naa Cheikh ni mu dëppoo wala jamono ak ni mu civilisé woon mu teg ci ne loolu gis nañ ko mu royaat ci xalifaam bi Cheikh Mawlana Cheikh Hadj Mali nee nag point yooyu yëpp boo ko boolee da gis ne mooy lislaam point yi ñu tuddoon sax xam-xam jëf liggéey euh, boole koog jikko ju rafet boole koog civilisation nee ne yooyu buñ dajee rek lislaam amoo tariqa cheikh amoo te yooyu yëpp dajee rek ci école Mawlana Cheikh Hadji Malick te yooyu buñ dajee ci école école ba ku ca génnee da nekk citoyen boo xam ne bu ëllëgee modèle ngay nekk roy citoyen buy boo xam ne yaay ci réew mu ne soxla nee na te loolu mooy li nga xam ne mooy jàngale suñu maam bi baax bi mooy si faj nee na ku ca jum da nekk modèle moo xam ne borom xam-xam da nga réussir sa mission booy docteur médecin da nga sa médecin sa sa sa mission booy politique politique da nga réussir sa sa mission boo nee ingénieur wala ngay économiste yi noonu nee loolu moo mën a indi citoyen modèle dellusiwaat ci jàngale yu rafet yi suñu maam bi baax lu mu jàngale mu ne Cheikh Ahmed Abdoul mu ngi koy puukareewoo di wax ne ci ñi ñi yàlla may may ko tariqa bi doo leen ko tariqa bi ci jamono jii la bokk ndax mu ne dal gi ci moom ak xikma bi sagesse bi mu ci boole ak xam jëflante xam jamono te xam li mu war a def ak li mu war a wax ak fa mu koy waxee ak na mu koy waxee nee na loolu dëgg-dëgg yaakaar bu rëy la chance bu rëy la ci tariqa bi ci époque bi ñu toll nga xam ne àddina bi yëngu na lëndëm lëndëm yi bëri na jéye yi bëri na te dara waralu ko lu may euh, ñu xamul dara ci lislaam wàcc yoon wa di oote woo lislaam ci turu lislaam te li ñuy def dara dëppoo jëg lislaam nee na kon mu ngi wax ne wa mu ngi sàkku ci tijaan yi ñu gën a yokk liggéey bi gën a double effort yi gën a surtout coordonné liggéey bi ndax ñépp a ngi liggéey ku ne yaa ngi sa ruq di liggéey waaye dafa mel ni million yuy liggéey kenn ku nekk taxaw ci sa ruq di liggéey fukk yu boole la ñuy def ñoo leen di gën a gaaw a am ndam ñoo leen di gën a gaaw a réussir kon mu ne lañ boole liggéey bi mu ne nag Sénégal réew la moo xam ne mu am chance ndax réew mu lislaam yaakaar la tey fii lañ yaakaare lay lislaam ndam ak jaare ko ci école bii di tariqa cheikh radiallahu anhu ndax mu ne dafay pays stratégie stratégique moom Sénégal ci ni ko yàlla séddee mu am cër bi mu am ci diine ji ak ci tariqa bi ak góor ñu ñi ko yàlla sédd boroom xam-xam yee kilifa yu baax yi ko yàlla sédd mu joxe ci exemple ci sëriñ bi nee na kon dëgg-dëgg réew moomu war nañ mën yaakaar ci ñoom incha allah ñu tegaat xeet bi ci place bi nga xam ne fu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg fa nee na mu ngi rafetlu yi tamit bu baax taxawaayu sëriñ ba Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Niass nee na kilifa bu woyof la kilifa gu rafet jikko la kilifa bu mën a yaatal la bu mën a uuf nee na moom it lim seede ci mbokkam mi Cheikh Hadj Abdoul Aziz yëpp mën na ko seede ci moom yooyu daan la wax ak Cheikh Madani Taalib nee na du ko fàtte moom it nee mën naa ànd ak magam yi ci liggéey boobu ak taxawaay boobu nee na ñooñu nag lañ yaakaar tey ci li ndam liñ bëgg a réaliser l'islam ak tariqa bi ba génn ci problème yi ñuy dégg fu ne ci àdduna bi violence bi ci turu lislaam yooyu yëpp nee na solution bi mu ngi ci loxo kilifa yi mu ngi ñaan yàlla te mu ne nañ dolli liggéey bi nañ gën a organiser wu nañ gën a euh, takku nañu ah nañ gën a takku surtout mu ne nañ ci boole yi tamit nag ñaan ci asraar tariqa bi nga xam ne moom la fii Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bàyyi ak xulafaa yi ñu demee nekk suñu maam yu ndax nee na asraar yooyu dara taxa koo jóg lu may bi defar nekkinu xeet bi te soxla nañ ko tey na ko taalibe Tijaan yépp jëlaat di ci ñaanal xeet bi ngir yàlla delloo siwaat xeet bi ci palaasam te maye jàmm ci àddina bi loolu mooy li mu tëjee wax ne li mu bëggoon a wax bëri na lool waaye temps bi moo ko mayee mu ngi ñaan yàlla mu dolli xéewalam ci ñun di ñaan yàlla mu gën ñee tënk ci lislaam bu wér ak jàngale man ñu baax ni te bu mu def mukk suñu jotaay bii muy suñu jotaay bu mujj waaye yàlla na yàlla mayaat daje yu bëree bëree bëri yàlla yàlla fay mu ne képp koo xam ne participé na ci ndaje mii moo xam ci dërëmam wala ci xalaatam wala ci ñaqam nee mu ngi ñaan mbooloo ñu ak Sénégalais yi jullit yi rawatina tijaan ñu doon ñaanal sama Rasulullah Hassan de Hassan Mohamed Sadis nasarallah ngir yàlla yokk ndamam te doon ko wëkk ko aar ndax ku diine ci yitteel la rawatina tariqa bi ku yitteel la kuy bàyyi xel tariqa bi la ak liggéeyu tariqa bi ak tijaan yi ku leen dimbale la financièrement di leen dimbale tamit ci xelaatam nee na mu ngi sàkku ci mbooloo ñu ñaanal sëy bi euh, général kalmalik Mawlana Mouhamad bin Sadis nasarallah ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.